jërë ngeen jëf ñaar fukki dogal ak ñaar yi nguurug Sénégal jël ngir wàññi accident yi ci réew mi l'observateur mi ngi ñuy wax ne ci virage ba ñu war a ak transporteurs yi fa la yëf ya nar a jaxasoowee bil bi ci mesure yi ñu teg am na ci yoo xam ne arrangé wul yi te bu ñu moytul yéenekaay bi nee nañu ak bëjoo dana am seen digg gouvernement bi mën nañoo dem ba yegg ci xëy dégg ne transporteurs yi téye nañu seeni loxo indi nañu ba dañuy wax ne ñaar fukki mesure ak ñaari état bi jël bari na ci ay chauffeur ay coxeur ak ay importateurs yi pneu yu ci àndul rawatina nag horaire yi ñu bëgg a aaye ñuy daw dëkk ak dëkk diggante 23 heures mu di 11 ci guddi ba 5 heures du waa ji di Moustapha Ndiaye bokk ci kuréelu transporteurs yi di UTRS nee waa Vox Populi porte bagage yi ñu fi bëgg jële bu ñu ko defee askan wi rek la sonal ndax bagage yi ñuy yàpp ci porte bagage yi chauffeur si moomuñu gi jël keroog amit ñu ca selenglo ndax jàpp ne mesures yu fi jiitoon fa ñu mujjee fa la mesures yi di mujj enquête bind ci xëtamu njëkk ne juur jàng ji dëgg nag mi ngi ci application mesures yi journal bi mi ngi laajit état bi ak i mesures am ana nan la ñuy def ak cette place yi nan la ñuy def ak njeganjaay yi nan la def ak car rapide yi car rapide prestige monsieur ak madame yi ko taxawal kenn ka di monsieur Maguette Gueye témoigné nee nañu mi ngi wane yoon wi ñu war a jaar bu ñu bëggee wàññi accident yi ci réew mi Maguette Gueye mi jiite bu ñu génnee ci conseil interministériel bi ko premier ministre Amadou Ba woowoon keroog ca xam leen ne dogal yi bi indi lu baax la waaye bu ñu taxawul ci application bi du jur dara mu ne nag moom aw laajte mi ko fas yéene bëgg a bàyyi ci dëru yi fas na yéene wër fukki région ak ñeent yi nekk ci réew mi ngir sensibiliser képp kuy dawal mu doole ci nag ne du yomb ndax dafay laaj ay moyens yu bare bari ay moyens matériels ak i moyens financiers waaye jar na ko ñu jaare fa dem ci source wa mi xëy di xamale ak ndem si yàlla Mohamed Touré mooy ki mujjee faatu ci accident bari amoon nit ay problème ngir mën a noyyi bu baax fanweeri at ak juróom-ñaar la amoon amoon na soxna gardien la woon ca sem Lamine bu Pikine administration école ba ñoo ko mayoon permission ci feetuk Noël gi ngir mu dem Tamba seeti ay mbokkam ndax gëj na leen a gis samedi bii passé ca la doon ñibbi Ndakaaru far des ci accident ba accident yi ak ni ñu mel ci réew mi ku xëy xool xët mu njëkku libération gis ne jéggi na dayo journal bi nee nañu ci ñett yu teg ñeent fukk ak ñeent ci ay doomu aadama jëlee gaañu-gaañu ci accident yi téeméeri accident yoo jël ci réew mi juróom-ñaar fukki ak ñaar jàpp juróom mu di pour cent ba pour cent ab xayma wax na ne accident yooyee ñoo ngi am ci diggante 22 heures jàpp 6 heures du matin fukki accident yu am ci réew mi juróom-ñett ya ay véhicule transport public de voyageurs ñoo ko def Le Quotidien moom xëy ci zone di barab yi nga xam ne liñ fay faral ci Malem Hodar ak Koussanar ci Lé Boubacar route nationale numéro bu Ziguinchor bi ca Benteñe Gandigal Sandiara ak Thiadiaye yéenekaay bi nee nañu bokk na ci barab yi ñuy faral di dégg ay accident Le Quotidien gis na it ne yoon yu bon ak wata yu màgget bokk na ci li indi accident yi accident bi amoon keroog ca Kaffrine La Tribune nee nañu tax nañu fàtte waxi ñi sàcc àlal réew mi ci jamonoy coronavirus bi bés bi le jour ne ko fàtte mukk mbir yi kay ma journal las di ko dëggal rapport bu cour des bi yéenekaay bi nee nañu jébbal nañu ko procureur de la république journal lay fo gis ne état bu sénégal mënut ñàkk lijjanti coowal rapport cour des comptes bi ndax partenaires financiers yi ñoo ko mayul fu mu yàkk ak nàkkam kenn ci partenaires réew mi di waa FMI seen représentant résident di Mesmin Coulé Victor mi ngi xamle ci Walf Quotidien ne ñoom waa FMI ñoo ngi ne tekk toog di déglu ba xam saison génn na ba Modou Lo jébbal ko waa CNG bi démb guddi yu ñu toll nag sunu lamb nee nañu am na lu ma juróom-ñaari promoteur yuy xëccoo ak a njëkkante ngir bëgg tëgg lambi Modou Lo ak Boy ñan